ay activité yu yaatu ni ki ay journal télévisé ay taalif discours bi nga xam ni principal def na ko ak élèves yi lii yenn la ci yenn activités yi nga xamante ni moo amoon ci journée culturel bu franco arabe bu Daaru Salaam mu doonoon jataay bu am solo boo xam ni gone yi fa toog indi nañu seen xereñ ci li ñu mën waajur yi ñëwoon itam wane ci seen mbégte naka noonu itam ñi nga xamante ni ñooy invité yi ak ñi jiite école bi sant ci bu baax ñu déglu ci Cheikhouna Mbaye di président gouvernement scolaire bu franco arabe activité yi ngi ciy def yépp boo xoolee yu boo xoolee luy soññi nit ki la i soññi élève bi la ci mu gën a góorgóorlu gën a fonkaat am njàngam loolu nag mooy li ñu taxawoon a jóg ñu jël bu année bu jot dañ koy def comme ni muy amee ci école yi mais ñun xëy na ñenn dañ ko jël pour def ko feet pour jël loo xam dañ koy jël pour feetu ci noonu mais ñun dëgg la feet sax baax na waaye teewul nañ ko jël ñu profité ci occasion bi ñu def ci lenn loo xamante ni danañu jariñ dara jariñ élève bi ci mu gëna mëna gor a góorgóorlu gën a fonkaat njàng mi loolu mooy li nga xam ne moo tax ñi jël bu ñu seetloo prestation yi nga xamante ni club arab bu français scientifique ak ñi saytu wàllu environnement def nañ ko day gën a firndeel loolu Serigne Cheikh Ndiaye di principalu école bi wane na ni lii xereñ la ak initiative boo xam ne élèves yi ñoo ko jëlal seen bopp élèves yi liggéeyal ko seen bopp lo loo ni taxaw bi ni ñu ko defé ni seen liggéey la ñun defu ñu lu encadrer leen ngir dénga lolu ñu mën ci am liñ bëgg suñu jëkkee ba bis na tay ñu dajalo ñoom ñëpp kenn ku nekk génné saw déggine sa man loolu day da leen di gëna soñu ñom seen digënté da leen di gëna tax dénga man parent de la itam gën a xam dëgg-dëgg ñun lan lañuy def fi yeen yi nga xam da ngeen ñëw itam di média yi tassari ko gëna xam dëgg dëgg dëgg dëgg franco arab programme bi lan la ba tax ne maanaam am solo gi mënu fi raw ginnaaw nag bu activités yooyu yëpp jàllee ci la ñu jublu ci jël ay neexal tànn yenn ci élèves yoo xam ne ñoo gën a jàmbaare ràññee leen jox leen ko ngir mu doon ab soññe ci seeni moroom